ñun ci olof lan lañ de wax malaka mu mel ni ki ñu ngi ko jëlee ci baat yooyu li nga xam ne moom lañ dégg ci borom laka yii nii te lan la malaaka tekki moo di ku ñoy yóoni te suñ seetee ci suñuy dundin nit ki nga xam ne dafa dem di jëmale lu baax di tax nit ñi mun a jaamoo ak beenoo lan lañ ko dee ooyee ci suñu aada kii malaaka la ngir ne dañ ko yónni ndax mu jagal diggante mbaa jagal mbooloo bu doon yàqu mbaa jagal ñaar ñu doon yàqu suñu seetee nag ci suñu téere bu sell bi am nañ fa béréb yoo xam ne wax nañ fa malaaka te ñu jëlee ko ca téere ba jiitu mu di Genesis am nañ fa benn ci saar yi li nga xam ne moom lañ fa wax moo di ne yàlla dafa yónnee malaakaam ca yoon wa nekk ca soo te mu ne jaam bu jigéen bi tudda Xaaga fan nga di jéem malaaka nag niñ ko waxee woon neneen dinañ dee wax ne nit njaay la malaaka bu dee ne ci yàlla la jóge di ñëw xel la dee nekka du dee nekka nit waaye nit ci boppam malaaka la mun nañoo seet malaaka bii ni demoon ci moom xaagaay daf ko feeñu woon ni nit njaay te suñu seetloo itam am na feneen foo xam ne wax nañ ko ci béri bi mu di mbinda ma jiitu mu di Genesis ci ñaar ubbérib lañ ko wax waaye dinañu njëkkee ci bii mu di ne fanweeru saar ba ak ñaar wax nañ fa malaaka te lii nañ ca wax ba Jacob doon dem ci yoonam àndoon na ak malaka yàlla gamu taseel te kooka gis ko te ànd ak moom te ne ko fii moo di mbaar ni yàlla sanca dinañ ko tuddi maxinaam foofu malaaka yi dafa feeñuwaat jëmi nit la amee woon te suñu waxtaan tey dinañu waxtaan bu baaxa a baax lan moo di malaaka dinaa leen bàyyi nag ak Reverend Junisa ndax mu gën a waxtaan Thank you, Papa Wali. Uh, Brother Dikin, may we hear from you? Thank you, Reverend. One of the irony of about one of the irony about angels is the fact that angels are actually have personalities, they have emotions, they have feelings, they have bodies. But it's interesting to note that angels don't marry and reproduce. Unlike human beings, we have personalities, we have bodies, we have emotions and passions, and we get married. But for they, they have these attributes in them. Nevertheless, they don't marry, neither do they reproduce. They are created by God Almighty, of course. And in Matthew 22, verse 30, tells us, For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. So this, this gives us a clear understanding of angels that they don't marry and that they don't reproduce. Another issue also you need to understand about angels is the fact that angels are countless. Cannot, you cannot number them. We have a clear picture presented by Daniel when he saw thousands and thousands of angels that kept listening to God. And in Daniel chapter 7, verse 10, it reads, A fiery stream issued and came forth from before him, thousands thousand mystery unto him, and ten thousands times ten thousand stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So this presents us a clear picture of the magnitude of angels, which we can hardly count. Okay. Then, yes. At this point, um, Reverend, we want to come in also and ask some few issues. Well, he has just said that angels cannot be counted, and uh, we now have had this. Let's see what we have. Mm -hmm. That angels and messengers, that angels, if we refer to them as spirits, and just as you said, they have feelings, mm -hmm. they have emotions, they have they, but they don't marry, mm -hmm. neither do they reproduce. Mm-hmm. And somebody may ask, well, how, when they don't marry, they don't reproduce, how do we keep having them? Mm. And just as we've explained, they are created by God. And we've just made the point that angels cannot be counted. So Papawali will just tell us that. Then we'll move to another aspect. We'll look at their rank and their order when Papawali speaks. waxtaan wi li ci doon wax nenaña malaaka yi ñoom dina ñooy yëg bànneex naka nit waaye duñu sey te li nga xam ne moom lañ fa gis ci téere bi nga xam ne moo mujjee wan nañ ñu fa ne li joon wax gis naa ndiiraan u ndiiraan u malaka yu nit mënuta liim kenn mënu leen a waña léegi ñu ngi am loo xam ne mënuñ koo waña naka la loolu amee ñu fàttaliku leena ne yàlla suy sàkk benn mun na caa am junni te junni mun naa nekk benn lii la xel war dab te xam ni noonu la yàlla mel yàlla lu tuuti mun na koo réyal te lu bare mun na koo def mu nekk lu tuuti ngir dañ ko dee wax sa ci suñuy ñaan yi nee na ay njunde njunde at e, e. tolluwul ni benn bés ci kanamu yàlla bonduuk e, malaka bi yi luñ bare bare bare mm. yàlla ci boppam moo leen sàkka te saa yu nekk mu ngi sàkka mm, ay malaaka mm, te buñ seetloo ci maat yu foofu la ñu wone itam ni malaaka yi du ñooy sëy ngir ne booba ab werante amoon na ci kanadi doona jabar ji nga xam ne juróom ñaar ñi takkoon nañ ko foofa yeesu dafa feeñal ni ku àgga aljana dangaa mel ni ki malaaka yi yokku gaangu ñun bés suñ àggee aljana dinañ doon ay malaaka moo tax malaaka du sëy du jur ay doom waaye mu ngi génn di sakkan di génn di bare Thank you very much, Papa Wali. And now we want to move to another aspect of the angels, another thing about the angels. Just as we are in our communities, so also they are. In our communities, we have people, and we have people according to ranks. If you look at the soldiers, you have them by ranks. You look at offices, people are by ranks. Uh, permanent secretary coming right down, minister, permanent secretary, etc., etc. So is it among the angels. They have their ranks. They all